Alaaji Ba ñu waaw maa leen fay bu baax a baax. ñu ngi ñëwoon fii tey Alaaji Alaaji. c'est Alaaji Ba. am benn style boo xamante ne c'est propre à donc Alaaji. sentir sama style de musique afro mbala tout est moderne donc ça c'est Alaaji Ba. ba c'est 13 donc. Euh, bëri na ay thèmes bëri na ay leçons yu nekk ci biir donc euh, lii laa doon xaar album ñëw au moins ma génne loo xamante ne peut-être nit ñi xamaguñ ko woon découvrir luñ ko woon ci ba ci jiba donc album ku ko déglu donc ci côté ci côté thème donc c'est vraiment riche et donc euh, muy noonu daal. voilà ñu bëri dañu naan Jeeba amul problème amour aussi. yaa na des chansons d'amour amour comme ni ñuy wax rek ci vois xam nga amour c'est la vie tout le temps nu ma koy waxee rek amour c'est la vie donc style benn affaire la boo xamante ne sénégalais yëpp tàmm nañ ma ko ci. donc album bi aussi tamit j'ai j'ai essayé de fair lépp loo xamante ne rek peut-être muy reproche muy muy des critiques ou bien loo xamante neex na sama fans loolu laa essayé regrouper def ko ci album bi quoi. waaw ah, baa noonu laa la a wax critique yooyu noonu mooy mooy mooy mooy mooy kii artiste artiste bu ne dafa soxla ay critique donc de ce fait critique yooyu yëpp laa jël lu ñu doon wax ak lu négatif et tout ça tey ma jël ko boole ko def ko ci album képp koo xam ne da doon critique peut-être Djiba chanson d'amour rek lay def et ci biir album yaa énormément de thèmes ci ay thèmes sax ñoo ëpp ci ci ci album bi donc soo xoolee alpulaar moo ci nekk waaye comme dégluwoo ko yow benn son poular moo ci nekk muy Debba Pula benn style bi yëpp c'est style afro mbalax. waaw. waaye c'est ça euh, album ouverture la quoi tu vois parce que Sénégal amatul loo xamante ne tey wan wan naa ko mën a wane waat ci son j'ai fait plus de dix titres ici au Sénégal lu bokkut ak album que day it macha allah sant yàlla donc sama album dama ne donc naa gën a wëri ci quoi ci artiste région bi muy Mali Guinée euh, Mauritanie et tout def boole leen ci album bi. ok album yaa ngi boo xam ne wala si mu génne album Pape Diouf mu génne album Youssou mu génne album. waaw c'est loolu c'est une bonne nouvelle Sénégal loolu lañ doon xaar comme xam nga donc ça fait un bail Sénégal kenn bu génne album balaa keneen génne waat c'est un problème donc lii mooy doxal musique donc effectivement loolu c'est une bonne. est que nekkul est-ce que nekkul. non dara musul nekk risque ci man tu vois c'est un album xam naa produit bu ma yor. donc sénégalais yaa ngi noonu quoi ce sont les sénégalais qui jugent xam naa ma yor j'ai fait sama album naa ko sama staff na ko lu ma jot a génn gum ñëpp laaj nañ ko donc ça va. soo ñu son yi ñu ngi ci YouTube son yëpp ñu ngi ci yeneen plateforme yëpp yëpp képp koo xamante ne foo mën a télécharger rek les sons ñu ci plateforme yëpp. léegi est-ce euh, bien sûr YouTube mu ngi fay YouTube mu ngi fay feneen ak feneen mu ngi fay Spotify Deezer Apple Music yeneen ak yeneen donc tous ces streams là donc ça va waaw ok merci jaajëf.